aywa Chérif jàngat bi bokk na ca la ñu fas yéene waxtaanee muy transfert bu Léo Messi waaye itam euh, actualité sportive rawatina euh, football bi ak doomu Sénégal yi ci yëngu. waaw muy la am solo ñu nuyuwaat euh, Aboubacry bu baax a baax yaa ngi koy fàttali sànq kilifa la kon fële ca Guinée di fa média bu mag kon di 6 média 6 TV ñu koy seetaan fii ci Sénégal mm. ah, ah, ñuy tàmbale nag ak Messi di leen ko wax sànq ak football business gis nañ coow li mu jur dafa mel ni contraire ndax bët ki dem bële ñu wax Messi am jàppal Messi indil Messi ak li mu ci football bi mais laata loolu aussi Edouard Mendy di gardien de but équipe nationale bu Sénégal mook Chelsea ginnaaw bi ñu jëlee Ligue des démb également jël nañ super coupe bi gagné Villarreal bu Boulaye Dia Edouard est-ce li dina tax chance yi wax comme ni ko journaux yi bindee ci Ballon d'or Afrique bi mu gagné gol de. Edouard Mendy pour que mu gagne ballon d'or africain lu possible lu war a mën a nekk la ah, gisoon nañ fi déjà avant moom ay gardien de but yu am gal ballon d'or africain ay ñoom Thomas Kono ay Badou Zaki amoon na fi mm-hmm. te Edouard li mu def euh, c'est vrai ci année bi suñ ko joxoon ballon tamit kenn du kenn du mer du bett kenn mais nag bon comme euh, dañu nekk ci presque ci campagne mm-hmm. il faut ñun ñëpp ñu jàpp si parce que gis naa la presse sénégalaise commence déjà à en parler c'est bien c'est un bon mm. c'est un bon départ le fait que ñu jël idée boobu di ko duggal ci ci bopp nit ñi mm. parce que bu ñu fàtte que presse day voté am na ci part bu part bu bari mais du presse rek mooy voté mm. am na benn dans le jury composé aussi de euh, de de coach d'entraîneur euh, et cetera ak le groupe technique euh, de la de la donc lu war a mën a nekk la en tout cas ñu ngi koy ñaanal su ko su ko amee day wane que Euh, effort yi mu def progrès yi mu def c'est reconnu par euh, du pas seulement par les Sénégalais mais par euh, par tout le monde ñun moom xamoon nañu valeur Edouard avant muy dem Chelsea. moo doon mooy suñu gardien titulaire lépp ak lépp li mu def ci ci équipe Sénégal bokk na ci yoo xam ne contribue na ci quasiment période d'invincibilité bu Sénégal parce que Sénégal bu ñu fàttali que perte nañu contre Algérie mais toog nañu yàgg kenn dooruñu. Afrique justement son principal challenger ça va être un Algérien certainement Riyad Mahrez. te Mahrez aussi. Euh, sauf que moom sa saison bon mais gagné wul Europe mais en club quand même pratiquement euh, a gagné le championnat. gagné aussi les Coupes de la Ligue, je pense. Il y a eu au moins 3, 3, 3 Ligue des Champions, ah. euh, euh, Mais aussi, non, avec Algérie, non, bon, Algérie aussi, en équipe nationale aussi. Performant avec son équipe nationale. Mais nous sommes numéro 1 africain. mais quand pense qu'il y aura ah, match. Ça veut dire euh, gardien bu gardien d'abord parce que mm. nouveauté bi mooy ñu xalaat ni que ndax gardien mën na que gardien gagné ko actuellement parce que wax nañu Badou Zaki wax nañu mais yàgg na parce que y a maintenant de nouveaux joueurs yi nga xam ne euh, amuñu woon mm-hmm. euh, presque exposition médiatique bi mm-hmm. mais gardien gagné ci période bi ça va être une très grosse performance mm-hmm. et puis euh, wax dëgg yàlla nag Edouard Mendy réunit toutes les conditions pour ci euro bi on a vu gardien de but hein, qui a été le meilleur joueur du meilleur tournoi joueur. Euh, Donnarumma. Voilà. donc Edouard Donnarumma dafa nekk meilleur joueur parce qu'il a gagné. waaw tamit a gagné donc nañu. nañu may rek préparé suñu kan tranquillement ak suñu benn ballon. mu succédé à Sadio Mané. amiin ñu ngi koy ñaanal loolu. Mm. mais beneen bi nag mooy événement bi Messi quand même. Euh, à Paris finalement jóge ci équipe bu Diao bi nga xamante ni donc ba léegi. yow est bett na la. est-ce que du équipe boobu sax moom tamit. est que du équipe bu ñëpp ngay ngay wax. voilà. waa <laughs> bett na ma quoi. loolu moom kenn mënul toog naan bettu. métti na la aussi. non méttiwuma parce que pour man beneen beneen ère mooy commencé xam nga boo nekkee ci domaine. Mm-hmm. di suivre évolution lu baax la. li gën a bon ci li ñuy mënti def li ci gën a moom mooy mu lenn loo xam ne du bouger. Mm-hmm. boo bu ñu demee bay jàgg xam nga ci histoire football euh, professionnel ñu bëri di naan arrêt Bosman arrêt Bosman parce que dafa am lu mu changé ci football. je pense que transfert u Messi bi tamit dina am li mu changé ci football. am dañ doon wax ne que bon am naa xaalis lu ma neex laay def am euh, comment on appelle ça euh, mun naa changer ay règles ak yooyu léegi ñu ngi toll ci foo xam ne egg nañu fu ci réglementation mm-hmm. ndaxte. Euh, mbiru Messi euh, mën nañu wax gaa xaalis la mais tamit réglementation moo tax mu dem du xaalis moo tax mu dem mhm. Mhm. parce que de Messi de chaque année bu ñu gisee club yi léegi lu ñuy def chaque année nga am joueur di ko négocier di ko augmenter pour sécuriser li ñu wax pour mu bañ a dem ngay augmenter ngay augmenter ba mu ëpp la doole Messi dafa dem ba ëpp doole Barcelone donc Barça mënutu ko woon euh, yore donc quelque part bu ñu xalaat ne que xaalis kese moo tax mu dem parce que euh, à la limite lu Paris dépensé pour am Messi li mu dépensé pour am Neymar moo ëpp li mu dépensé pour am Messi li mu dépensé pour am Mbappé moo ëpp li mu dépensé pour am euh, pour ci wàllu ci wàllu gestion comme ni nga ko parce que Messi soo xoolee divisé na salaire bi mais le problème c'est les autres joueurs comme ni nga ko waxee masse salariale mi ngi koy expliqué ni c'est pas ko mais salaire dafa am salarié cap boo xamee ni. ci Espagne dañu ne dañu ne sa salaire euh, le salaire bi warul def warul dépasser soixante dix pour cent de tes dépenses. avec salaire u Messi actuelle bi. Mm-hmm. ñu ngi ci cent quinze pour cent de leurs dépenses. ils ont dépensé euh, dépassé leur euh, salaire yi kese dépassé nañu. elle est bu ñu diviser salaire u Messi comme il la prévu par deux. Mhm. ils se retrouvent à quatre vingt quinze pour cent. ils sont mhm. encore loin des c'est pas suffisant soixante pour cent dafa dafa bëri donc du mbirum xaalis mais mbirum gestion la parce que li xew ci Messi mooy depuis presque euh, vingt ans. Mhm. chaque année Messi a une revalorisation. il met tout pour sécuriser. Messi dafa dem dafa dem ba ëpp Barcelone doole. mun na xalaat xalaat naa ne que yeneen club yi war nañ ci jàngat. mais yeneen investissement yi aussi bokk na ci parce que là Messi dem na mais ba léegi Barcelone ñi mu jënd sax mënumu leen inscrire parce que y a contrat de Griezmann qui est là qui est extrêmement lourd y a le contrat de Coutinho qui est là de Dembélé qui est là ak euh, ñoom Umtiti waaw rek ça veut dire que et puis en plus aussi qu'on n'oublie pas Covid bi parce que je pense que élément déclencheur bi dafa mel ni foofu la euh, Barcelone à un moment dañu am Messi Neymar yor ay revenu merchandising yoo xam ne kenn xamul nu mu toll di yokk salaire yi nu mu kenn xamul nu toll Covid ñëw lépp rës je pense que ils n'ont pas été vigilants ci côté boobu. du ñoom rek am ah, parce que finalement bu ñu xoolee par exemple Messi par exemple bu doon nekkoon euh, bu nekkul woon euh, Europe ba pardon Espagne mun na jouer. parce que même règlement yi ma pare en France ci affaire Covid justement dañuy def dañuy changer seen règlement pour aider les clubs. à cause de à cause de li may wax rek. enfin li ma bëgg ñu xam ci gestion kaawu Lionel Messi mooy que club yi dañu war a moytu euh, ñu ngi nekk di yar ay. yoo xam ne ay yar boo xam ne tabaski bi egg si munatoo ko munatoo ci njëriñ. <laughs> loolu mooy loolu mooy suñu problème instant bi chaque année y a des renégociations. ñu ñu ñu yokk salaire di dem di dem ba mu munutuñ. Barcelone problème bi mooy munutul woon téye Messi. et d'ailleurs je pense que loolu lañ politique boobu lañ comprendre ba tax à la sax dem nee nañ am na foo xam ne buñ fa yëgatee joor ci salaire mais yow ci naka la la bettee yow transfert bi Messi ak Barcelone xam nga am na am na kii nu mu euh, bi ñuy béyee benn blague bi ñuy blague souvent ci milieu du football naan que euh, ndaw si da dañ ñëw que enfin ku góor gi danañ ñëw di courtiser la fille la fille buubu ku nekk damay génn yow bu Messi jógee Barcelone gars yi na ko mais c'est pas possible xam nga ne que c'est pas possible da ngay wax na rek bëggoo ma mm-hmm. mu ne ah, en tout ma condition donc c'est-à-dire demoon na bu ba ba nit ñi intériorise que Messi du mës a jóge euh, du mës a jóge Barcelone parce que nu mu fa ñëwee la li Barcelone def ci moom il est venu à Barcelone à l'âge de onze ans ñu faj ko jox ko lii li mu bëgg moom tamit jox na Barcelone. donc ne ne demoon nañu ba nekk boo xam ne. mënatu ñoom ñaar mënatuñu woon. presque voilà c' était presque impossible. gars yi ni ñu waxoon nag waaye Iniesta daa dem na. Euh, Xavi dem na mais nee na Messi moom mooy ko nga xam ne. mais est ce que du loolu est ce que Abo est ce que du tamit yenn supporters Barcelone yu bëri je pense que tamit euh, temps boobu la ñu am contre Messi parce que Xavi dafa bàyyi n'a pas souhaité jouer contre Barcelone dem Qatar. Iniesta tamit n'a pas souhaité jouer contre Barcelone dem euh, Japon Messi aussi il y a quelques années waxoon nañu je jouerai jamais en Europe contre Barça mais tey jii euh, mi ngi dem il a expliqué que c'est parce que. il veut être il n'a pas encore joué contre le Barça. et c'est possible on lui a posé la question hier ah. su match Barça mu def Neymar blessé. on lui a posé la question hier. <laughs> non mais comme comme li ñu wax mooy mënatuñu euh, maîtriser tuñu dara. c'est devenu euh, vraiment la jungle aujourd'hui moo tax booy wax rek da nga ci xaw a i a manqué il ne faut jamais dire jamais mhm. la mën a apporter euh, club bi di Paris Saint-Germain euh, li mu am léegi par exemple ex cette exposition parce que je pense qu'on n'a jamais autant parlé de Paris Saint-Germain que <laughs> ces ah que ces deux derniers mhm. euh, xaalis euh, tamit parce que li bu ñu fàtte tamit bu dañu wax ni que Messi est parti à Paris quasi gratuitement mais il y a des clauses yoo xam ne tamit <laughs> buñ xamaguñ ko mais. Mhm. Euh, du kenn du former si en fait ci mbedd mi dañ ko def euh, ay négociations ak euh, xaalis bu takkul la ñu génne pour Messi tamit mais loolu peut-être dinañ ko xam xami plus tard li mu indi ci li muy indil Messi moom li ñu indil Paris mooy toutes les recettes qu'on voit aujourd'hui en termes d'image en termes de. de merchandising lu ñu lu ñu wax mais Messi bu ñu fàtte tamit que c'est pas un retraité qui est venu c'est jouer encore un joueur compétitif euh, il est encore il tourne autour de 30 buts par euh, par saison c'est euh, c'est quelqu'un qui qui qui sait gagner qui sait faire gagner donc li Paris bëgg peut-être xam nga dañuy fat Paris dañuy wax ne am nañu xaalis et cetera on oublie toujours que ñoom tamit ils veulent de la rentabilité parce que tout simplement ils ont mis dans l'esprit tout le monde ñoom li ñu bëgg mooy Ligue des champions li ñu dépensé léegi li ñu mm. dépensé pour am Ligue des champions Ligue des champions mënu leen ko indil mais c'est devenu une question de prestige mm, te loolu foog naa aujourd'hui Messi moo leen ko mën a jox ci lii les joueurs yi nekk ci circuit yëpp Messi bokk na ci ñoo xam ne il peut faire gagner de Messi il le Qatar également on sait que lumière du Qatar on verra que des photos de Messi <laughs> ci coupe du monde bi. gis na maillot yi aussi ni ko gars yi di arraché ci boutique yi gis nañu aussi même les réseau sociaux la kon ñu ne par exemple Paris ci vingt quatre heures cinq millions d' abonnés loolu aussi je pense que c' est l' Messi. waaw waaw c' est ça mooy moom mooy li ma doon wax léegi rek ci ci retombée euh, économique euh, ci wàllu marchandising ci parce que Paris léegi ça devient vraiment. Euh, un club d'une autre dimension. Ils sont entrés dans une autre euh, dimension en signant Messi. Ils avaient déjà de grands joueurs. Hein. Mhm. Les Mbappé, voilà, ils ont amené Beckham, ils ont amené tout le monde qui, qui image boobu. Maintenant avec Messi mooy li ñu soxloon ci n projet yëpp mën nañ ko am ci benn joueur am image am résultat sportif donc euh, je pense que c'est pourquoi on dit que mhm. Paris a fait euh, euh, une très très belle opération. léegi sportivement nag Ligue 1 bi yow yàgg nga commenter les matchs Messi en Ligue 1. naka la naka demee. comme Messi à à Liga rek parce que bu ñu bu ñu fàtte tamit que Messi c' pas tous les week qu'il joue contre le Real ou euh, contre l' Atlético il joue mm. contre Grenade. Mm. Il, si tu joues contre Grenade tu peux jouer contre Nantes tu si contre USK tu peux jouer contre Dijon et am na Liga tamit bari na ay club yu ndaw. Mm. du club bu Liga yëpp euh, mag dina jouer ak ay ay ay match yu rëy dina jouer contre Lyon. dina jouer contre Marseille. dina jouer contre Monaco ça peut on peut comme dina jouer c'est un peu le niveau de l'Atlético Madrid de Villarreal de Valence je que la question de Chérif day gën a accentuer sur le fait que euh, le niveau euh, plus relevé mm-hmm. mais jouer contre de petites équipes Messi le, le connaît déjà en Espagne mm-hmm. Paris Paris googu heureusement qu'ils ne sont pas dans le même secteur que que Messi normalement du Messi moo leen di tere donc euh, mais Messi li gën a jàpp si Messi mooy il il s'est sublimé ses partenaires Ah mais Messi, c'est un très grand joueur, mais ce n'est pas le plus égoïste des joueurs aussi. Hein. Et il sait sublimer ses partenaires. Euh, il beaucoup pour, euh, pour les autres. Euh, pour les loolu bokk na ci qualité wu Messi tamit ba ngay xool quasiment Messi ak euh, période yu mu joué Barça quel que soit les joueurs il s'est toujours euh, entendu avec d'accord nag ñeneen ñi. Mm. Euh, joué na temps ñoom Ronaldinho ñoom Eto'o. ñoom Iniesta dem ñoom Neymar ñëw ñoom Thierry rek il a pu jouer avec tout le monde et à chaque fois Messi a été euh, un joueur li ñu wax euh, joueur d'équipe mm-hmm. donc euh, suñu suñu joueurs yi tamit dañ dañ ciy profité parce que comme li ñu wax léegi Paris Saint-Germain dootuñu ko xoolee comme club ordinaire boo nekkee ci club ordinaire nag yoo tamit da nga war a nekk extraordinaire. Euh, Idrissa Gana Gueye il il doit hausser son niveau de jeu pour être au niveau de ce club extraordinaire le club de Messi. Mm. parce que ça devient le club de Messi. <laughs> Euh, avant ku dem Barcelone mm. avant ku dem Barcelone boo ratee passe boo ratee contrôle sax ñu xam ne tout de suite ça se voit. Mm. naan mais kii xamul dara lu muy wut Barça. lu muy wut Barça léegi nag il faut pression bi day yokk ci ñoom voilà mais lu muy wut Paris Saint-Germain day mm. que avant mënoon nga def ñu ne ah mais léegi loo euh, mais justement dégg naa nga wax benn affaire boo xam ne est-ce que c'est le problème du Paris le club de match France Ligue des Champions le Paris de Messi ngay dégg la vient d'arriver il avait Neymar il avait euh, Mbappé Mbappé sax déjà paraît que ça grince des dents son côté, il veut partir. Mais est-ce que euh, euh, Messi ne va pas faire de l'ombre, même si, si ouais. il est ami avec Au Neymar, loolu yëpp tamit. yaa euh, mais moom laa moom laa doon expliquer léegi mais euh, club Messi moom mënuñu ko bañ a wax. Mm. c'est le plus grand. parce que c'est mm. Messi. tàgg mm-hmm. mooy Verratti. Mm-hmm. bizarrement ñeneen ñi bu ñu boo ko posé Neymar naan non oh non du Neymar rek laa xam foofu xam naa Di Maria. il a longtemps courtisé quand il était au Barça. voilà il n'a pas il n'a même pas cité le seul joueur qu'il a nommément cité en parlant de ses qualités. Mm. c'est Verratti. Mm. léegi on a même di dire on a tout fait pour le faire venir au Barcelone et euh, chez Barcelone parce que xam na ne que euh, équipe pour moom ci boppam mu def li mu bëgg. il faut que ñëpp nekk ci ginnaaw. Mm. Euh, nekk à un niveau de performance. bu Idrissa Gana Gueye aujourd'hui réussirait deux passes pour Messi, il a réussi son match. Et, et pour réussir ces bonnes passes pour, euh, pour Messi, il faut également se mettre au service de Messi. Barcelone, ils n'ont pas eu honte pendant longtemps de dire que les joueurs se mettent au service de hmm, Messi. Quel ak ku mënta ñëw na mel. Euh, Suarez li Suarez ñëw na fi mooy attaquant de pointe waaye euh, dàqul dugal Messi. Neymar ñoom Thierry ku mënta ñëw qui joue pour Messi. loo bu nee nag bu ñu bëggee nag. am bicéphalisme ou tricéphalisme je ne sais pas. sax mm-hmm. ñoom ñooy dem. parce que Messi moom day je pense que mi ngi waaj a leer. <laughs> waaw <laughs> foofu laa bëgg a ñëw sax parce que Cheikh Tidiane mi ngi koy mi ngi koy junj sànq du côté de Mbappé ça chahute un peu euh, bëgg il veut quitter pour aller je pense que c'est c'est Real la bëgg a dem. Messi qui arrive se dit. voilà oui mais le président lui a demandé de rester hier. mais est-ce que le a six mois d'être libre au mois de janvier s'il n'est pas transféré il peut négocier. négocier euh, avec n'importe quelle équipe. c'est là le problème li Mbappé li Mbappé wax tamit te président bi wax ko dem bu ñu bu ñu bu ñu xalaatee euh, Mbappé waxul la daf bëgg dal mu ne je veux une équipe compétitive je veux jouer dans une équipe compétitive président ne ko ah. <laughs> ah, ah li ñu am léegi xanaa Paris Saint-Germain. bon <laughs> ne peut pas dire que Paris n'est pas compétitif. parce que.

li Mbappé di def Messi mënu ko def te du ko sax xalaat mais il va lui faire de l'ombre Mbappé tey jii il il veut gagner le ballon d'or mais <laughs> l'expérience mais il a besoin de l'expérience de Messi sax lui aussi non mais ça c'est ça c'est clair mais maintenant mën na nekk ci suñu analyse bu bopp ak yooyu mais li ma li ma xam ci Mbappé, c'est un joueur réfléchi, c'est un joueur très intelligent. C'est beaucoup d'ego de sa part. mais l'ego, c'est le... formation. On te dit, oh, depuis le centre de formation, on dit tu dois être numéro un, tu dois être le meilleur. C'est entré dans le. Amul, amul ben joueur de haut niveau qui n'est pas égoïste. Ça n'existe pas. Mais c'est la gestion qui, compte. Et lui, le gère plutôt de façon intelligente. Euh, Mbappé, vous nous aussi qu'il y a une sorte de. Euh, Mbappé bashing depuis Euro depuis bu mu raté. pour l'équipe de France les médias français tamit commencé nañu mm. changer un peu le regard qu'ils avaient de Mbappé. Mm. il y a quelques deux trois ans Mbappé. Mm. dans la presse française c'était le après la coupe du monde. exactement mais maintenant dañu toll ci période boo xam ne un son contrat mu ngi waaj a deux euh, français yi xaw nañ ko mere ci ci ci Europe bi. Mhm. ci instant bi nag la ñuy rece la ñuy génne li mu waxoon yëpp toutes les petites phrases on va les sortir de leur contexte mais moom musul wax ne daf bëgg jóge Paris. Mhm. dafa ne je veux être dans une équipe compétitive. l'équipe est maintenant compétitive. on va voir comment il va mais ah, comment il va prolonger <laughs> les négociations n'ont pas et ce qui est important aussi mhm. c'est que on a depuis quasiment l'euro on parle pour Mbappé il n'a rien waxugul dara ba léegi mais on commence à parler ressortir si euh, de leur euh, contexte di xool ay attitude di di xool euh, ñan la ñan la nekkal vacances et cetera parce que il a été en vacances avec Karim Benzema ah donc voilà donc dañu nekk di inter ah, mais ñu ne ba léegi il n'a pas souhaité la bienvenue à Messi ah, contrairement aux autres <laughs> non non yaa ngi soros alors faut pas le dénier comme comme ni ko Abou waxee parce que gis na affaire jow yooyu tamit ñu leen wax su xaalis aussi parce que mooy mooy business tamit ci football. léegi ni ni demee nii dafa mel ni loolu mënatuñu fay ñàkk club yi néew doole tamit euh, boo saaganu dañuy sóolu. non non mënut mënutul ñàkk ça c' est clair et net mënutoo def football de haut niveau sans xaalis. xaalis bu bëri sax la ñuy wax beaucoup d' argent. Euh, ça ça moom c' important mais nañ ko jël rek à notre à notre échelle ici au niveau du au niveau du Sénégal boo buggee def des performance il faut aller trouver euh, bu xawoon. club yi xaw a structuré côté euh, sur le plan financier ils ont fait des résultats en Afrique Teungueth a commencé à mm-hmm. développer euh, des comment on appelle à créer des des ressources additionnelles à chercher des sources de financement mm-hmm. Jaraaf etc les clubs sont en train de structurer de se structurer Génération mm-hmm. etc xaalis. a la voilà ouais, non mais je pense la dire c'est une dimension parce que c'est vrai qu'ils ont un pouvoir financier. Ouais, de L'Oréal c'est ce qu'il est aujourd'hui ouais. Ils sont en am non non xaalis ci football c'est c'est vrai en tout cas boo bëggee def euh, résultat sinon tu peux faire ton club traditionnel di jouer nawetaan maire yi la tàccu wala des contrats Mais si tu peux faire, si tu veux faire des performances, il faut, il faut aller chercher cet argent. L'argent aura toujours sa place dans les performances. Ça, c'est, ça, c'est indéniable. Un club pauvre ne gagne pas la Ligue des Champions. Un club euh, pauvre ne, ne, gagne pas les championnats, les, ne fait pas les grosses performances, etc. Ça peut arriver de temps en temps qu'il y ait des accidents de parcours, ouais. mais si tu veux t'installer dans la durée des performances, du, du, du recruter des grands joueurs, etc., faut beaucoup il faut malheureusement am xaalis gis nañu Messi li mu bëgg Barcelone li mu bëgg Barcelone il était obligé de partir parce qu'à un moment il était devenu plus cher quasiment que le ce que le club pouvait hmm. donner. te Messi dafa mel ni moom bon gourmandise bi de ba léegi mi ci surtout coupe du monde parce que boo xoolee dem dina nañ ci close contrat bi. li mu wax ak waa Paris mooy priorité bu ko Argentine soxlaa moom priorité à l' équipe nationale dafa mel ni kon ba léegi li li ko dese au moins ci trophée mooy coupe du monde pour mu jël ko. waaw loolu euh, tamit c' est important pour un joueur de 34 ans mu am des ambitions boo recruter joueur bu ne leen man bon de toute façon j'ai tout gagné amatuma benn ambition. mais am njëriñatul dara. ça n'a pas ça n'a du amul challenge. amul challenge joueur dañ koy challenge comme tout employeur d'ailleurs boo recruter fii benn journaliste bi naan ah moo man star la j'ai rien à a amatu fi place donc c'est c'est c'est important aussi que mu wax mu ne que mon rêve c'est de gagner euh, un autre titre de Ligue des Ligue des Champions c'est il ne le disait il ne l'avait pas dit quand il était au, Barça parce que c'était naturel mm. le Barça c'est une équipe boo xam ne euh, chaque saison, ils sont parmi les favoris. Mmh. Favoris de la Liga, favoris de la Ligue des Champions, quel que soit leur effectif. Parce que am nañu euh, esprit, am nañu mmh, mmh. esprit euh, habitude di am titre, am nañu de de grands joueurs. Messi bokkoon na ci grands joueurs yi léegi xam naa. pression boobu ak aura boobu loolu la ñu bëgg a transformer ci Paris Saint-Germain. c'est ça xam naa su gagné coupe du monde peut-être dina am leneen lu changé. merci beaucoup Rwanda moom gagné nañ ci dem visite Rwanda mooy sponsor ñoom it. da nga bëgg ñu def visite Sénégal. <laughs> ah en que ah. loolu tamit xaalis a vu le Rwanda aussi bon def naa euh, Arsenal la même chose. Mm. sponsor non mais ça fait partie de leur ñoom euh, tamit. merci beaucoup Aboubacry tu restes avec nous ñu euh, dalal sunu invité c'est tout de suite